gouvernance vertueuse nak da ngay wax deug sa population da ngay wax deug sa askan munoo ñëw di wax mardi à midi ndox bi dina ñew te wóowu su le wóowulee à 1000 pour bul ko wax te nak ku xol mir bi xam c'est un problème technique sérieux dans quel délai nañ koy mën réparer de manière irréversible xamaguñ ko comme que lolu wóoruñu wóoruñu à 1000 nañu cent ak Sénégalais deug dëgg ne leen ah ñu ngi ci djublu dinañ ci liggéey Maintenant, 40 nord 60 nord le mot disponible c'est-à-dire 60 000 mètres cubes Nous allons partager.